ñaareel bi ma bëgg a wax mooy ñoom li ñu xaw a réussir nag tuuti mooy fexe nañu ba nit ñi waxatuñu nii Benno Bokk Yaakaar warul bokk ci élection yi waaye ñëpp ñi ngi naan Yewwi dafa war a bokk ma delloo si xel yi ci lenn conseil constitutionnel forfaiture bi ñu def li ci gën a garaaw lu sax ñu ne liste titulaire Yewwi Askan Wi warul dem waaye le fait ñu fexe ba dugalaat Benno Bokk Yaakaar te boobu jamono Benno Bokk Yaakaar ay parrainage am ëpp na muy benn parité am respecté wu loolu gën a garaaw ci le conseil constitutionnel def ces sept charges là c' est des li ñu def c' est un crime loolu moo gën a garaaw que sax le fait que ñu ne ñun suñu liste titulaire nationale du dem kon dama bëgg ñu delloo ci xel yi ci loolu balaa ñu naan suñu liste nationale dafa war a bokk coow li yëpp mooy Benno Bokk Yaakaar waru bokk ci élection bi parce que keneen ku mu doon listam doo bokk ci élection bi ñaata nit la téye parce que nee nañu seen parrainage matul yoon dafa ne parrainage bi bu manqué benn munoo dem bu ëppee benn munoo dem Benno Bokk Yaakaar ëppale benn depuis quand conseil constitutionnel nga xam ne c'est le juge de la conformité à la Constitution naan la l'arrêté d'un ministre depuis quand le conseil constitutionnel est le juge de la conformité à un arrêté ministériel c'est une honte c'est une honte ce que les, les, les, les la, la magistrature est en train de faire dans ce pays et j'interpelle l'union des magistrats bu dee dese na leen lenn su dee dese na leen ci dignité ak probité nañu jóg wax ci ñoom li ñuy def ñoom magistrat yi ci réew bu dee nag dañoo bëgg a gëmloo ni justice amatul desetul dara lépp a ngi ci loxo Macky Sall ñu xam ni on a un pouvoir exécutif amuñu judiciaire amuñu législatif pouvoir exécutif la am boo xam ne ay juges yu koy jaamu la ay fonctionnaires yu koy jaamu la looloo fi def ci réew et donc ñetteel bi ma bëgg wax mooy arrêté préfet li préfet def dafa symboliser li ñu li ñu def suñu administration léegi li des ci administration le gouverneur laa bëgg a wax sax gouverneur d'abord parce que le gouverneur de Dakar ku ma xam bu baax la maag moom ñoo bokk promotion ENAM chaque cinq heures ñu doon footballeur au ENAM xam naa ni ku baax la waaye alxasan gis nga àdduna yenn saa yi nga jël sa responsabilité ñu affecté la feneen sax moo gën nga nangu ñu associer sa tur ci njombe yu mel nii moom gouverneur Alassane Sall sama frère la je le connais xam naa nit ku baax la l'esprit loolu lañ ko doon wooye bi ñuy football l'esprit l'esprit waruñu laa wàcce ba ci lii rafetul carrière jarul yan yi nit sa dignité ak sa diggante ak sa borom amul lu ko war a jar lu dul ay carrière Macky Sall wax na Antoine Diome wax na et cetera parce que moom ci boppam ñu signé la loolu xam na ni article bi ñu wax yéen journalistes yi la jublu te pourtant yéen journalistes yi ngi ni di couvrir suñu conférence de presse bu meeting amee di ngeen ñëw article bi amul benn rapport avec la liberté de manifester ou de se regrouper amul dafa ne période pré-électorale bi yéen waru leen couvrir propagande électorale ñoom suñu cohérent ak cohérent ak ñoom te yéen ñëpp dañ leen war a ñëw rek kon moom alxasan xam na ni liñ ko signéloo te wóor na ma sax dañoo bind rek na ko signél mu signé xam na ni lii dëppoowul ak yoon waaye c'est à ça que notre administration est réduite et c'est triste réew mi bu ñu koy defaraat justice ak administration la ñuy njëkk jublu ay réforme parce que justice bu nërmaloo ci réew rek dara desu ko lépp mun na nërmalu ci réew ba mu des justice te soo waxee rek ñu làqatu waaye l'institution judiciaire nangam les les plus grands ennemis de l'institution judiciaire son dans la magistrature loolu mooy dëgg kon arrêté gouverneur bi c'est un arrêté illégal mënul service de base à une interdiction préfet bi li mu def tey mënul légal parce que préfet bi ñaar la wax bu njëkk mooy menace de trouble à l'ordre public saa waxuñu nag menace de trouble à l'ordre public bi lan la de xam naa MFDC mooy ñëw ak toutes ses bases à la place de l'obélisque peut-être que sax Macky moo leen di jox kaar ñu ñëw lan mooy menace à l'ordre public ñun di semaine ba de def nañ ci manifestation dara yënguwul manifestation bu mucc ay ñu pare ramasse euh, mbuus yeeg yëpp defaraat place ba mu rafet nit ñi ñibbi moo tax d'ailleurs li ma wax léegi gis ngeen procureur il faut euh, il faut yeewi askan wi déposer une plainte contre le procureur parce que ñu def manifestation ay une semaine coow amul dara amul nga toog ba tey nañu suñu manifestation boobu insurrection la woon est-ce que procureur bopp bi yuur bi normal ñu def seen manifestation une semaine plus tard dara yëngatuwul pétard sax dégguñu ko nga jékki-jékki inventé say ay histoire ne manifestation bi insurrection la woon ana les les les les les les signes de l' insurrection kan la ñu xeexal fan la ñu dem est ce que dañoo délogé palais est ce que est ce que ana ana signe insurrection yow loolu mu ñu jiiñ nag on va déposer on va demander à nos avocats de préparer on va déposer une plainte parce que toog yor fonction rek foog ni lu ne mën nga ko teg ci ci deru bi dafa yomb procureur waxul dëgg waxul dëgg xam na ni insurrection amul te nous l'interpellons personnellement parce que dafa am loo xam ne nit su koy def mun nañ ne c'est des actes et des propos détachables de sa fonction fonction procureur du lii li mu wax tey politique la bu ñu waxee ba pare nag dañuy wax sénégalais yëpp que suñu manifestation gannaaw ëllëg maintenir nañ ko duñ ci changé lu toll ni tàmbali ay manifestation maintenir nañ ko duñ ci changé tarfata ay man dama ne sax est-ce que waruñu koo dem defi place de l'indépendance waaw est-ce que waruñu koo defi place de l'indépendance duñ ci changé dara dinañ def suñu manifestation parce que nag li ma bëgg incha allah boobu li ma bëgg sénégalais yi xam gis nga li ñuy xeex nii du ay poste ñu bëgg fii amul kenn ku fi ku fi poste député ñi fi musa ñi fi toog ñëpp daanaka presque musa nekk député ministre ak yeneen ak yeneen man mii di wax ak yéen pour mu nekk député bi ñu waxee dama leen ne woon am naa mandat bu may gérer à Ziguinchor dama bëgg concentré wu ci loolu ñu xool nag mi ñuy préparer élection présidentielle waxtaan moo andi ba ñu convaincre ma ne dinaa dugg su ma su ma nekkoon député damay choisir diggante la ma a def Ziguinchor ak député parce que man gëmuma cumul de fonction kon ñun député feesul suñu bët nekk nañu député ba tey ji cinq ans nekk naa ko député ñeneen ñëpp fii déjee nekk na ko Aïda Mbodj nekk na ko Habib Sy euh, Khalifa Sall et cetera kon nag mooy poste député ñun xeexuñu pour poste mais principe la ñuy xeexal mooy lii suñ ko nangu mag Macky nañu xam ni c'est fini ci Sénégal nit ñu bëri dañuy woo naan ñu woy euh, moom bu leen ko topp ci loolu xam ngeen décalé leen mbir mi et cetera looloo tax dix ans yi passé Macky Sall di def lu ko neex est-ce que mun nañu continuer accepter que Macky mooy tànn kan mooy dem élection élection législative bi ñuy dem benn ténor opposition du ci bokk est-ce que loolu xel mun na kon yéenay gis France élection législative Jean-Luc Mélenchon ma nga fa Marine Le Pen ma nga fa xalaatuñu élection législative France ñu ne éliminer ñu diw parce que nee nañu listam xaw ma xalaatuñu ko noo mu nee ne damay dem élection législative nga ne Ousmane Sonko du bokk Khalifa Sall du bokk Karim du bokk Déthié Fall du bokk Aïda Mbodj du bokk Habib Sy du bokk et cetera et cetera loolu ban façon élection législative la est-ce que loolu sénégalais yi war nañ ko mën a nangu kenn ku nekk fi nga toog sa biir salon nañu posé wu question yooyu principe yooyu lañuy xeexee muy ñaar mooy li mu def pour annuler suñu candidature te tegu ko ci yoon ñaareel bi mooy mu tegaat ci nag ni les libertés dama koy confisquer ma fàttali ni Macky 2011 dafa ne l'affrontement est inévitable ça sa se jouer dans la rue j'invite le peuple sénégalais à sortir il n'y avait pas d'autorisation chaque jour ñu ngi woon place Obélisque il a pas d'autorisation li may wax Macky Sall mooy sa se jouera dans la rue et moi j'appelle tous les Sénégalais à sortir dans la rue c'est tout kon mu des nag buñ ko bàyyee ba mu tere ñu ñun manifester te nu mu demee nu mu mun ci demee dina am manifestation manifestation lay bañ dina am manifestation manifestation nag bëri na forme dëkk bi yëpp dina am manifestation bu soobee yàlla li ca des nag mooy complot yi nga xam ne Macky Sall mi ngeeg moom complot yi mu nekkee xam nga li mu defee woon France ñun xam nañ ko ku mu dajeel France ci ñu ci lu ñu fësal ak lu ñu fësalul xam nañ ko ci ñu bokk ci réew mi ak ñi ko ngemb ci France lépp xam nañ lan fa uti woon xam nañ ko ay pexe du mu def su bëggoon jot du ma ne lépp xam nañ ko de waaye waaye li bëri xam nañ parce que ni mu yobalee ses services de renseignement généraux yooyu noonu la ñu amee ñu nit suñuy nit ku mu toog ba foog ni wéet na ba sax ndax xam ni li muy def ñu ngi koy xam kon gënuñu ñoo muus ma bëgg wax sénégalais ni procureur li mu def sàmm commande politique la ça n'a rien à voir avec la justice procureur ci boppam xam na li muy wax dëgg xam na ko kon li mu def léegi politique la du justice tey leader yi fi nekk yëpp ay cible Macky Sall lañu waaye xam nañ ni tey leen tax a jóg mooy jëmm Ousmane Sonko moo tax dem nañu fabriquer seen rebelle feex nañ ba mu tudd Ousmane su tuddoon Ousmane it Sonko lay sant waaw su tuddoon Ousmane su tuddoon Bakary Sonko lay sant <laughs> dem nañu fabriquer seen i rebelle nee nañu waa ji moom xamu fu mu jógee moom dong nag moo waroon ñëw taal Sénégal <laughs> moom dong xamu fu ñu ko jëlee ak ay xam naa ni war naa yàlla war na koo may ay don yu extraordinaire moom dong mu waroon ñëw taal ci senegal moo wax leen ni procureur waxul dëgg day politique ci politique la nekk waaye procureur dafa waroon am fitu ne Macky Sall daf maa yebal pour ma jiiñ Ousmane Sonko rebelle dem jàppi ko wax ji lool loolu la. ay personne n'est intouchable dans ce pays. li mu ci jublu xam nañ ko waaye ñoo ngi leen di xaar jóge nañ ci complot siif jóge nañ ci complot salafiste jóge nañ ci complot tulooy ooy léegi bii moo leen dese waaye fii lañ leen di xaar fii la ñuy fekk seen complot. bi mu voté loi am gannaaw duma yi ko duma mars daaw la voté loi ci terrorisme yéen a koy fàttali. rébellion la ñu bëgg a wax appel à insurrection ñaar yooyu la ñu bëgg wax appelé à manifester qui est un droit constitutionnel et désormais un appel à insurrection dans le jargon de lexique juridique de Macky Sall de son procureur et de ses juges foofu lañ toll ci Sénégal. seen mbébét yëpp nag mooy nu ñuy def ba teg loxo ci leader yi seeni complot dem na ba ne soyez pas étonnés ñu fomenté fi ay attentat Macky Sall sañ na ko di ngeen jékki-jékki ñu dégg attentat parce que doo wax ñu nee la contexte sécuritaire le Sénégal n'est pas en danger sécuritaire daaw bi ñu ko waxee 4 avril police ak gen kii militaire yi ak gendarme yi 4 avril ñoo def seen émission ne li ñuy wax amul y' a pas de jihadisme ni de terrorisme au Sénégal démenti boobu mi ngi fi dugg leen ci internet parce que nag nous avons une armée très républicaine boo xam ne kenn mënu koo dugal ci caaxaan pexeem yi muy def ni yëpp ci police la ak ñu jiite ñenn ñi jiite gendarmerie waaye police bi du leen topp de la ci ëpp ci agent yi duñu leen topp te chaque fois wax leen ko nag Macky Sall bu mu leen tayle saa yu defee li muy def pare day jël avion dem bu mu leen tayle mais seen complot yooyu yëpp daaw bi ñu ko waxee dajale dajale euh, force occulte qu'on a vu jusqu'à présent euh, xaw ma la nag lan terrorisme gendarmerie ak police ñoo ñëw plateau 4 avril ne loolu amul kan moo ëpp information gendarmerie ak armée ci lu jëm ci sécurité amul ci Sénégal Macky Sall ci boppam ñooñu ñoo koy informé Sénégal nag ñoo war a bañ Macky Sall sa stratégie waxoon naa ko fi c'est la stratégie du chaos xam ne ni mënul am troisième mandat nu muy def ba créer un chaos fexe ba jàppale leader daal di décra décréter l'état d'urgence et et et le comment on appelle ça le couvre général pour mën a justifier nag ni muy def régime militaire la fi bëgg a andi bu dee rek dañ ko topp ci loolu. tamit mi koy def ak des complicités étrangères et à l'interne ay ay milices yu muy monté moom Macky Sall ay milices yu muy monté pour ñu mën a def ay jombe ci réew mi ñu ne voilà opposition bi ñoo woote woon loolu lay waajal ñun xam nañ ko ndax am nañu information yi ma wax nag nii yu bëri ñu ngi woo ne ñu bu leen dem ci affrontement ñun suñu option première du affrontement suñuy droit constitutionnel la ñu bëgg a exercer un point un trait ak refuser une mascarade par rapport à nos amul leneen ñu bëri dañ lay wax ni ma Sall sait que l' affrontement est inéluctable mais repousser leen ko ba coowal troisième mandat commencé mais li ma bëgg a mooy li mu bëgg def nii suñ ko ko bàyyi leen mu yombee noonu ci moom dara dootu ko jomb ci li ci des parce que du koo xam ne xa mun na dégg wala mun na raisonné wu moom xamul loolu su làmbee mu nooy rek day dem looloo tax ma ne ñun combat de principe moo tax ñuy xeex manifestation ëllëg bi gannaaw ëllëg bi leaders yi ñooy xool ndax suba dañuy introduire référé directement au niveau de la cour man dama koy wax gëw ma cour suprême gëw ma conseil constitutionnel jusqu'à ce que ñu réformer justice bi dama gëmul justice Sénégal ci dossier boo xam ne am na connotation politique gëmuma ko mais la loi d'abord l'article de la constitution dafa ne liberté de manifester sénégalais dama bëgg mu leer mooy sénégalais bu nekk am nga sañ-sañu ñaxtu te waxul ni da war a autorisation de dafa ne da ko war a yéegal rek autorité la loi de 1978 sur les manifestations lan la wax dafa ne autorité administrative mun na interdire un regroupement wala une marche mais ci ñaari condition te ñaari conditions yi dañu war a daje dama bëgg ñu def ñu bu baax donc interdiction bi c'est l'exception c'est pas le principe mais pour mu am il faut que ñaari conditions yi daje bi ci njëkk mooy il faut mu prouver ni am na menace à l'ordre public prouver gu ko de wax ñu lan mooy menace loolu moo tax ñu ne procureur génnal ne gis nañ fi ay rebelle yu bëri Salif Sadio sax mi ngi Dakar ay waxu daanu saret yoo xam ne kenn xamul lu doon ñaareel bi mooy ñu prouver que ñoom amuñu suffisamment de force de l'ordre pour pour encadrer la manifestation ba trouble ba menace de trouble à l'ordre public boobu du am ñaar yooyu il faut mu daje or su ngeen seetee arrêté préfet bi benn la ci wax kon arrêté bi c'est illégal dafa ne menace à l'ordre public mais waxul ni man préfet aw ma suffisamment de policiers de gendarmes pour encadrer la manifestation te gis nga loolu Cour suprême ci boppam génne la ci arrêt yu bëree bëri bëri bëri ma jox leen ci ñeent rek en 2011 Alioune Tine Rado contre État du Sénégal en 2016 Amnesty International contre État du Sénégal en 2018 Église du christianisme céleste contre État du Sénégal et en 2019 Assane Ba Birane Bari et compagnie contre État du Sénégal yëpp même chose la État du Sénégal dafa interdiroon manifestation Cour suprême ne ko da nga ne simplement que menace à l'ordre public mais prouvé woon ni yow amoo suffisamment d'effectifs de policiers et de gendarmes pour encadrer ba menace boobu du am donc tu n'as pas le droit d'interdire la manifestation donc l'arrêté du préfet lui-même est illégal léegi nag leader yi mun nañu xool parce que man gëw ma ay ay li ñu li ñu justice woon ci jamono ji man gëw ma justice mais su ko su ko état suñ ko dugalee suba it la cour suprême a 48 heures pour délibérer mais vu que ñoom tey la ñuy doog a notifier affaire bi su ñu dugalee suba la cour suprême doit se donner les moyens de de régler cette affaire avant vendredi matin c' est ça la norme mais duñ ko def parce que waajee toll fi mu toll woo leen ne leen bu leen yëngatu foofu la Sénégal toll bu ma dajalee lii lépp nag je vais lancer un appel aux Sénégalais aux militants et militantes aux sympathisants et aux sympathisantes à tous les sénégalais sénégalaises épris de justice appel bi ma leen lancé woon daaw laa leen di waxaat c'est un appel à la résistance constitution moo ne ku ñu dénk nguur muy jalgati yoon di utiliser les moyens d'état pour dal ci kaw sénégalais pour dal ci kaw opposition bi constitution may na la droit nga résister ni mu valable woon daaw ci mois de mars la valable tey lu bëri ci Sénégalais yi dañu jàpp ni mobilisation bi Sénégalais yi affaire u liste leen ñu mobiliser wu donc nañu xaar mbir mi ba mu tuddee troisième mandat may wax Sénégalais yi du affaire u liste moo tax ñuy mobiliser wu liy xew tey mooy déterminer troisième mandat bi ku jàpp nii affaire bi de suñ ko bàyyee mu yomb nii du continuer ci troisième mandat bi forcé def forcé da ngay nax sa bopp moo tax j'appelle tous les sénégalais à la résistance dafa am jamono yoo xam ne buñ ci tollee ci réew li nga xam ne mooy xeeñ ci sénégalais ñëpp xam ni changement bi ñuy xaar depuis xeeñ na mat na ñor na surtout yéen jeunesse bi surtout yéen jeunesse bi muy étudiant bi muy ambulant bi muy euh, élève bi muy keneen ak keneen nga xam ne yéen lañu bëgg a xañ loolu Macky Sall bëgg fi toogaat vingt ans parce que rek suñu gaz bi mu bugg a jaay mu jaay ba pare bëgg koo continuer ak suñu xaalis réew mu ñuy détourné ak yeneen ak yeneen su ngeen seetaanee ba ñuy romb facilement suñ ko seetaanee ñun ñëpp ba mu romb facilement dinañu màtt suñu baaraam te duñu am fu ñu ko jooyee moo tax fu ñuy daanelee mooy appeler publiquement massivement à la résistance face à la dictature rampante de Macky Sall.